voilà jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante ni yéen ay seetaan Rewmi TV di leen ak jàmm seen émission ci réew mi comme ni ñu ko defee saa su nekk rek émission bi nga xamante ni mooy waxtaanee wàllu actualité euh, si forme yëpp nga xamante ci biir réew mi ak bitim euh, réew mi rawatina ci wàllu politique dinañ wax tamit nga xamante ni mooy ñeel wàllu suicide nga xamante ni am ci biir réew mi dañu wàññi ci tool ci 143 cas ci biir euh, Dakar waaye tamit dinañ wax ci grève boulangerie nga xamante ne ji moo tëmbe woon biir réew mi mais ni ko defee gërëm ci ànd ak ki nga xamante mooy sama chroniqueur euh, di Jean Fall euh, Jean Fall ñu ngi nuyu baax. maa ngi leen di fay di kontaan euh, ci di émission bi ak di nuyu nag internautes yëpp nag laataa may wax ak internautes yi damay nuyu sama techniciens yi nga xamee ne duñ leen di faral di gis. Mm-hmm. mais ñoom ñoom ñoo tax ba tey jii ñu mën a mm-hmm. jàkkaarloog yéen. ñoom la ñuy wax les hommes de l'ombre ñoo nekk ci ginnaaw waaye ñu ngi koy defee saa su nekk rek li nga xamante ni ni moom mooy à une de Rewmi Quotidien euh, suicide à Dakar 143 vies auto les hommes se suicident euh, deux fois plus que les hommes la pendaison reste le mode le plus utilisé et 32,6% des suicides euh, sont enregistrés en banlieue toujours à la de Rewmi Quotidien une journée chaude à Dakar libéré Barth et compagnie jubile toujours dans Rewmi Quotidien à partie sportive Togo Sénégal ce jeudi Duarte vise la gagne et euh, le programme euh, des deux euh, dernières journées, l'historique des confrontations, meilleur buteur africain d'Europe, Salah et Habib Diallo en tête et termine avec basket. Le président de FIBA Monde à Dakar moo nekk li nga xamante ni moom moo gën a fës ci Rewmi Quotidien donc tey dañ koy enchaîner ak li nga xamante ni moom mooy à la une de Rewmi Quotidien ci li nga xamante ni moom mooy ñeel wàllu violence yi menace ak procès sénégalais yi nga xamante jamono ji ñu ngi nekk ci euh, guuta lépp waral ko wàllu élection yi ak yu mel donc violence bi nga xamante ni moom moo moo am ci biir dëkk bi ba sax ki nga xamante ni moom mooy Assane Samb wax ci si euh, euh, parti boobu ñuy wax au-delà des faits ne les Sénégalais pris en notage en otage jusqu'en 2024 ban jàngat ngay def ci violence bi am ci dëkk bi. xam nga dinañu kontaan ci wax ci wàllu violence bi ndaxte conséquence su violence bi ak menace bi. ak ni nga xamee ne noonu la ñuy euh, noonu la mbir yi tëddee da ngay toog ba si yàgg daal di ne aussi bien euh, opposition bi. Mm-hmm. ils sont irresponsables ñi nga xamee dañ leen jiital itam ils sont irresponsables ndaxte askan bi ci boppam ak jafe-jafe yi nga xamee ne wuti ji ay lekk. wuti ji lu ñu suturla woo wuti ji lu ñu am ngi daal di jël violence bi génn ci mbedd mi di taal ay pneu di sànni ay lacrymogène léeg ñu jàpp la par euh, te yow fekk sax yow danga nga doon doxi sa soxla loolu àq la àq la boo xamee ne xam naa ne bu nii ñu ko jëlee nii bés bu fekkee ne toog nañu di tii ku ci nekk yaakaar ne da ngay tiital sa morom di tiital sa morom bés bu fekkee ne affaire bi explosé na ay du yem ci bopp boromam. mais man père bu ñu naan explosion au Sénégal man daf may jaaxal parce que jeunes lay ils sont ba nga ci mbedd bi dem ñu ngi doon euh, parce que nit ñu bëri tal nañ leen lu ay xeex est ce que nekk fu mu nekk nii les jeunes sont maintenant conscients que ni mbir bi fii nga dee say mbokk jooy la wax ji mooy nga nag nga sanctionné waa sanctionné. waaw xam nga li ma euh, groupuscule yi nga xamee ne dañu taq derrière ay leader politique kii nga xamee ne parce que ni politique bi demee Sénégal noonu la parce que poli euh, kii bu nekk Euh, parti politique bu nekk dafa am benn leader bu muy identifié wu te noonu ñuy identifié wu am na ñoo xamee ne ñu ngi nekk ci seen gannaaw ñoo xamee ne ñoom la ñuy mën a mobiliser xam nga démb euh, garde boobu gaañu xam nga bu toggoon këram du xam nga ndaw soo si nga xamee ne oto police bi fiir na ko xam nga mënoon na ci jëlee musiba yàlla def na jàmm ba nga xamee ne rek démb dañ ku ci nekk daf doon xoqalante daf doon xoqal moromam xoqatal moromam te ci biir loolu amul euh, war nañu mun a toog ñu nekk ci euh, ki nga xamee ne moom la ñu convoqué moo waroon a dem wuy ji waaye tout ce la là dégg nga euh, ak euh, scénario bi ñu def di def ay cortège di kéeg yooyu kooku c'est la provocation. moom mooy woo. moo woo à la moo woote moo woote ci loolu. moo tax nag waaw mais ñoom noonu nga xamee noonu la ñuy provoquer. nguur gi nguur gi ci boppam waroon nañu toog sax croiser les di leen déglu ba ñu yëngal rek ñoom ñu soog a yëngatu. Mm. waaye waaye toujours dafay am. des deux camps ñoo xamee ne dañuy def excès de zèle dégg nga par exemple bu ñu bëggee jaar fii benn commandant ne doo fi jaar benn sergent ne doo jaar fi ñii ne dañuy jaar fii dégg nga di leen provoquer provocation yooyu euh, ñun ñi nga xamee ne ñoo yore carte électeur ñun ñoo ciy souffrir ndaxte boo xëyee suba yaa ngi xalaat looy daw yóbbul ko sa njaboot te loolu mënuloo ko ñi nga bu ñu fekkee ne euh, déjà rek bañ ñuy def seen yooyu mburu amul woon ci dëkk bi kenn munu woon lekk dégg nga donc yooyu yooyu dafa nekk ne am nañu àq euh, am nañu àq ci askan bi. mais am àq ci askan bi est-ce que aussi euh, li tax ñu naan ay euh, justice bi dañ ko instrumentaliser jël mbir mi ku leen neexee ku leen est-ce ñooy pousser lool parce que ki nga xamante ni moom mooy Barthélemy Diaz ñu ngi ko renvoyé ba le 2 décembre affaire Adji Sarr ba léegi waxaguñ ci ki nga xamante ni mooy Bougane Gueye Dany mi ngi am jafe-jafe ak waa fisc ñu gis ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy tête de l'opposition Euh, ku ci nekk am nga leen lu lay xaar ci justice bi euh, te euh, ñu gis ne à chaque fois bu bu bu am na lañu la ñuy yëngal mbiri est-ce que nekkul ne ñoom xam nañ ne am problème ak justice mais ñoom ñu ñoom ñooy xaw a yërëm tëru ci kanamu kii comme ni ko so waay di waxee layam layam ci kanam Sénégalais yi pour ñu yërëm leen parce que xam nañu Sénégalais bi voté si yërëm la leen la lay batale non xam nga il faut que ñu daal di waxante dëgg yow ba ngay def sa ay acte ak yëpp peuple bi ñu ngi doon doxi ji seen soxla peuple la kii la woon une foule anonyme sans cerveau bu doon dox di dëkk yeeg yooyu def nga sa jéyee ba pare dégg nga yuuxu dégg nga pour ñu ñëw fekk si la dégg nga ba pare euh, malencontreusement mooy que ne euh, euh, la conscience collective dafay basculer automatiquement ci situation yenn situation yeeg yeeg yu mel noonu parce que fi mu nekk nii dégg nga ku gën a rëy làmmiñ rek foofu la nit yi di basculer. Mhm. donc euh, li nga xamee ne moo nekk ci biir euh, mbir moomu en première instance condamné nañu euh, Barthélemy Diaz mu de moom moo def appel Barthélemy Diaz moo def appel mhm. mais bu defee appel mais buñ ko wooyee mais warul poser problème wala bu fekkoon ne euh, ñi nga xamee ne ñoom ñooy euh, famille yu njaga yi ñoom ñoo demoon def appel ci jugement bi ak yéeg yu mel noonu bu boobaa sax ñu daal di ne dañu am lu ñu instrumentaliser justice beeg yéeg yu mel noonu mais moom moo def appel te depuis le premier juillet wax nañ ko ne ko war nga wuy si démb ngeen dafa am nag lenn loo xamee ne les sénégalais ne sont pas des demeurés mmh. te taxaw rek dégg nga di yuuxu di kii yooyu te gis naa sax démb ay doomam di ci dugg ak di kii yu mel noonu mais li jëkk seen papa jëgu leen ah. Hmm. parce que fit da nga ko juddwaale. doo toog rek ne sama papa dafa am fit nga daal di jóg ne am fit parce que buñ la dóoree la lacrymogène sax di nga gis doo mun a noyyi. Hmm. loolu moo leen dal sax démb. donc donc yow bi ñu jël ci euh, day daw génn réew mais man je vois que est ce est normal que bu dëkk bi ndaree am yenn kii ñu jël dispositif teg ko ndax ñu mën a aar askan wi mais nekkul ne dañuy expérimental li euh, ñu koy sax install euh, li nga xamante ne mooy ñii di armée bi wala boog police wala mais juste pour euh, sécuriser ñi nga xamante ni ñooy askan wi. loolu euh, nguur gi def wareefam la def. les forces de défense et de sécurité. mais nekkul fa jël affaire bi euh, di utiliser ko. du ko utiliser parce que ñoom ba mu yoowee yow ñoo nga condamné nañ la nga ne da ngay def appel ñu woo la pour nga defi appel nga daal di ne ñoo leen ñu mobiliser wu pour dem foofu pour pourquoi bu dee wóolu nga sa bopp kay demal. lan moo doon enjeu ak euh, difficulté ak danger bi nekkoon ci Barthélemy des euh, appel am ba pare di woote pour ñu ñëw kii ko. fi mu nekk est-ce que Sénégalais ñoom ne Sonko. Bart euh, ki nga xamante ne moom mooy. bugaan gi ak ñoom ñoo ko politiser dañ ko politiser. mais est-ce que doo ñoom naan dem leen ngeen la jënd seen mbir armée ba noppi soog ñu taxaw laaj laaj euh, euh, mais boo moytuwul nag boo moytuwul bu ñu demee ca cappaandaw ba ca élection yi. Mm. boo moytuwul nag loolu mooy na a jouer contre ñoom. Mm. parce que am na ay sénégalais qui réfléchissent. Mm. am na ay sénégalais yu xam ne démb moo barte bu demoon amul benn enjeu boo xamee ne moom moo taxoon ba ñu daal di war a kii du dem ñu rey ko fa dañ ko woo justice yi ñoo ko woo dégg nga ni tout le monde est euh, égal au niveau de de de la loi dégg nga muy woote dégg nga di jël affaire bi di ko instrumentaliser ak yooyu la preuve la preuve gis nga décision administrative yi expulsé woon les listes yëpp dégg nga la cour d'appel de Saint-Louis delloo si waat na ko mais nañ toog dégloonte waaw dañ toog dégloonte ñu toog dégloonte kon euh, parce que foofu la ñuy euh, tëbee dem ci li nga xamante ni moom mooy wàllu euh, xaru yi nga xamante ni moo am ci biir Dakar ñu xemal toll ci 143 vies autodétruites en 10 ans ñu wax ne suicide nag ñi ci gën di gis moom mooy góor ñi te aussi ci banlieue bi la gën a bëri ndax 32 virgule 6 pour cent fa la gën a bëri xaru bi léegi ku jug rek ñu ne diw xaru na xaru na xaru na donc phénomène boo nga xam ne quasi naa bëri léegi yow lan nga jàpp ne moom moo ko andi. d'abord. Euh, xaru bi li ko indi moo di que ne ñi nga xamee ne ñoo ñu waroon a jël di ñu tàggat di ñu ragalloo yàlla di ñu woon yàlla ñoo deful seen liggéey waaye li liggéey ba doy mm-hmm. ndaxte ñun ba nga xamee ne ñu ngi ñëw di ñuy euh, confronté wu ñu daal di ñu euh, toqental ci lislaam dañu doon wax ne boo suicidé woo sax duñ la jullee léegi boo suicidé ñu lay jullee ce qui veut ne affaire naa naafeq mu ngi foofu. ci ci yenn ci yenn bërëb yi wala c'est partout au Sénégal. partout au Sénégal man ba may juddoo dama dégg ne dañ ma wax ne ma boo suicidé woo duñ la jullee. Mm-hmm. te duñ la suul ci armeel. te dinañ la suul ci armeel mais duñ la jullee. Ah, dañ lay jël rek envoyé paquet comme à la lettre. mais mais kuñ jullee wu moom nu ñu woo duggee ci armeel. ma ne. ku ñu julleewul mun nañ la suul ci armeel bu bu leen ñu fontoo ni affaire bi compliqué wul coow li coow li mooy ñi nga xamee ne ñoom ñooy waar nit ñi di delloo si nit ñi seen xel di leen won ne leen actuellement adduna bi jarul euh, li nekk ci adduna dafa jarul dégg nga ba ngay jël sa kii di di di faat sa sa kii euh, te d'abord te d'abord dama lay wax mm-hmm. suicidaire yépp yaakaar nañ ne jël buum def ko ci baat moo gën a gaaw te fekk jël fetal dóor ko balaa ngay dee di nga yëg métit bi boo takkee baat bi balaa ngay dee di nga yëg métit bi. mais euh, bu sax ñu ne pendaison moom moo gën a bëri sax. mooy li ma la wax dégg ah mais euh, nee sa pendaison mu ëpp ci euh, méthode loolu yëpp ragal ragal ak de boo koy def dégg nga daal di am di nga am toujours lu la naan tee ngaa taxaw ba si yàgg nga daal ne bu ma jëlee buum gi xëy na buum gi bu ma xojee dinaa gaaw a dee. Mm-hmm. te sa kii parce que di dee deret di génn doo ko dafay tiital nit. Mm-hmm. <laughs> di dee. Hmm. jël fetal ne ko taf. Hmm. fetal bare woo hmm. jël paaka ne ko jam doo gaaw a dee. yaa ngi dégg. te agonie boobu. moom moo tax ñuy daal di euh, dans la conscience des suicidés loolu mooy tax ñuy daal di choisir le boobu la ñuy choisir buum gi. léegi ci loolu am na sax ku ne ku joxe benn kii benn docteur mu ne euh, suicide euh, devient une option persistante dans notre tête quand l'humain a perdu espoir face à une souffrance envahissante. waaw donc mu mel ne kon fi mu nekk nii góor ñi sax la ñu wax ñu gën bëri donc loolu moo poussé nit. parce que est-ce fu mu nekk nii ñu xool Sénégal ay genre yoo xamante ne day jël ay émission yoo xamante ne c'est consacré à ça di di sensibiliser ñi euh, ci boo nekkee fas ci yenn souffrance lan moo la mën a tax ba doo ba doo euh, xaru comme comme amoon fee ki ree doo déglul déglul ma wax la dañu dama ne àddina bi boo toogee ba pare mhm. dafa am ay conséquence économique mhm. sociale mhm. yu war a mun a tax ngay xaru conséquence économique et sociales yooyu danga dafa am li nga xamee ne moo la ciy tàggat pour que souffrance yooyu nga di ko atténuer parce que yàlla baax na fu ñu la koy wax dafay fekk day am ay alternative mm-hmm. yaa ngi dégg suicide boobu ngay jël def référence suicide boobu amoon noonu li ko xamee ne moo ci nekkoon moo di que ne euh, frustration de quinze ans la nit ki souffrir amul ay euh, bouée de sauvetage mooy que ne ñooy ñëw di ko waxal di ko delloo si ak yàlla ak yëg yooyu moom muy dem ba nga xamee ne jël na àddina teg ko ci kaw bakkanam mm-hmm. ndaxte la mu defal jabaram dégg nga ak li nga xamee ne moom la doon def jabar ji di ko ko def dégg nga di ko naqaral ci biir sëy bi ak ni nga attitude yi mu doon am attitude yooyu moom moo tax mu daal di ne kii dinaa fexe ba puni ko pini bi ma koy pini moo di que ne man dinaa rey dinaa rey seen suñu doom yi ñu am parce que mérité wul doom yooyu. Mm-hmm. man ci soo bopp ma soog a dem. Mm-hmm. yaa ngi dégg ndaxte. Euh, boo demee bay suicidé wu dafay fekk tàggoo nga sa sago kii nga xamee ne nag mu ko doon jël di ko bund xataal ci biir sëy bi boobu moom it am na ay facteurs sociaux yoo xamee ne ñoom ñoo ko doon motiver dégg nga à savoir euh, bëgg naa daal di yéeg classe A bëgg naa am oto bu rafet bëgg naa nekk comme sama morom yi léegi fi mu nekk nii euh, am naa ci ñetti doom euh, nekk naa socialement réussir naa léegi xaaral ma lijjanti sama waa kër xaaral ma ki loolu def ko omnibile mu dema dema dem ba nga xamee ne xoolatul jëkkër ji gisatu ko mu daal di ne léegi je prends mes responsabilités je t'abandonne hmm. pour daal di mun a dund li nga xamee ne moom moom la euh, moom la ko euh, son moi son recentrage intérieur ak yooyu lim ko lim ko def lim ko jox moom la ko doon bëgg a appliquer. mais man ci loolu ci loolu parce que dafa mel ni dañoo ne góor lu ñuy xaru donc est-ce ñoo gën a mën a euh, endosser li nga xamante moom mooy ay souffrance ñoom ñoo gën a mën a muñ comme ni mu mu mu muñ ba mooy waral ñoom ñoo ëpp ci li ñuy xaru. non loolu ngay gis noonu c'est-à-dire dire que euh, ñiy wax ne góor ñu ñoo ëpp ci li ñuy xaru euh, ci chiffres yi ñoom ñooy wax loolu mais du question de gène du question de morphologie du question de góor ñi la wala kii yooyu mm. dek nit ku nekk da nga am ay faculté d'adaptation faculté d'adaptation ak muñ ñi nga xamee ne dañu fragile dafa am nit ñu fragile ak nit ñu foor ñi nga xamee ne dañ foor foor moyen foor ak kii yu mel noonu daal di diggante ci kii boobu ñoom ñooy mën a yegg ci yenn situation extrême yi mm-hmm. ci suñu société veru yi nga xamee ne ak soupape de sécurité yi nga xamee ne religion bi war nañu ko war a mun a jox que nga nekk chrétien que nekk musulman ñu war la tàggat war la wonne la àddina bi xaalis jaru ko àddina bi da ngay toog di jaamu sa borom pour que nga daal di mun ëllëg dégg nga daal di euh, boo dajeeg sa borom doo sëgg boo dajeeg sa borom di ko laaj naan ko mais yow yaa ma waxoon ne ma ma topp la topp naa la maa ngi nii léegi boo demee ba nga xamee ne da ngay toog ñu daal dina la ah yow euh, diw aana de moom jëkkër ji jëndal na ko oto ana de def na nii faatu de moom ci boppam ay or lañ ko jëndal kii de jël na ay masque dem euh, Arabie Saoudite ñu tëggal ko ay masque en or bu koy takk ku ci nekk di wonewu ku nekk di wonewu ba pare fàtte ne Covid bi dalay romb rek nga tëdd xoolal li Covid bi yóbbu nga xam ne yàlla am na. Hmm. yàlla bu amee euh, war nga mun a muñ ñu ne la bu la sa morom tooñee muñal yàlla dina la fayul. Hmm. loolu moo amatul. mais est-ce que Bansaay yàlla Bansaay du teg leen loo xamante ne yow da ngay dem ba mel ni comme ni ñu waxee yow kas yaay nekk si kaw bu la yàlla bëggoon comme ni nga waxee ñenn pour excuse de de ce terme mais su ma yàlla bëggoon du ma du ma teg yee natt wi est-ce que nekkul nit dem ba toolu foofu mooy waral mu ne man ma dee sax mu ma may dund yenn souffrance parce que euh, euh, amatuma espoir ci adduna bi. parce que boobu société bi ci boppam deful liggéeyam parce que su loolu bu nga mun a toog. gis nga bës bu la société bi mar marginalisé bës bu société bi di dem nga xamee ne c'est l'insouciance euh, euh, l'inconnu mm-hmm. ñu daal di la jël comme koo xamee ne euh, benn morceau bant nga dans une société mm-hmm. dugguloo ci biir société bi boobu dangay ngay société bu la exclure boo ci ngay mun a dem bay xalaat loolu mm-hmm. waaye bu fekkee ne dans la société teg nañu ay euh, paramètres yoo xamee ne par exemple ña amuloo liggéey par exemple amuloo loo lekk nga daal di lamb sa poos faj sa soxla nga daal di jóg am alternative mun a am liggéey boo yooyu yëpp frustration yi nga xamee ne ñoom nga war a dund parce que affaire bi communication la parce que à chaque fois bu fekkee ne société bi wala adduna bi taxaw na ci benn phase rek yow war nga mën a am euh, une situation de réplique booy am dégg nga li li muy indi nga koy nga koy xool muy muy ñëw ci yow yow ci sa bopp nga daal di ci ngay war a répondre bu fekkee ne nag dañ lay exclure nga daal di euh, ne man kat ci noolu ma la doon wax ñii dañ fort ñii fooruñu ñii mun nañ adapté wu c'est c'est une question d'adaptation c'est une question de polyvalence c'est une question de responsabilité mm. et c'est une question d'autorité personnelle boo war am voilà donc bu nekk loo xamante ne je pense que ñëpp nañ ci bàyyi xamante ne ñooy médias am nañ ci part responsabilité euh, que on des émissions yoo xamante ne on fait appel à des psychologues on fait appel à des euh, philosophes yoo xamante on va parler li nga xamante ne moo mën tax nit a génn comme Euh, suicide bi nga xamante ne moo nekk ci Sénégal euh, ñu jeexal ko. ak foofu sax d'accord ma ak yow sax hmm? foofu parce que gis nga gis nga société yi nga xamee ne psychologue yi ñooy réguler euh, li nga xamee ne mooy règle ak norme ak valeur yi nekk ci biir société boobule ñun ñii en Afrique. ñun ñii ci société musulmane ñun ñii dans la culture sénégalaise ñi koy war a def moo di ñi nga xamee ne ñoom ñooy euh, euh, à dominance euh, musulmane ak religion bi dégg nga ak ragal yàlla parce que ragal yàlla bi moo amatul boo mu dee gis ku yab yàlla rek da ngay ñëw Sénégal. <laughs> voilà donc mu nekk message kon boo euh, l' intégration des chefs religieux ak ñi nga xamante ni euh, mais presse bi presse bi amu ci kii ah presse bi amu ci dara presse bi lenn rek lay mën a def waa ji suicidé bi génne ko. Mhm. waaye amul euh, facteur boo xamee ne presse bi faute bi ñu def faute bi ñuy def mooy violence bi nga xamee ne ñu ngi koy alimenter dégg di wane nit ñi di ñëw di toog toog ci plateau yi di saaga di kii ak yooyu di menacer dégg nga di tourner euh, waa ji di ñëw di braver le force de défense et de sécurité ñu lay jël di la teg caméra bi pour ngay yuuxu di wone woo kii ak yooyu foofu mooy responsabilité presse bi. voilà donc euh, ñu jeexal ak li nga xamante ni moom mooy euh, grève yi mu nekk à cinq bi donc dépendance bi nga Sénégal am na ko ci pain alors que bu ñu am yenn alternative yoo xamante ni ñoom Malick Sow ba léegi liggéeyuñu que mburu amul woon du genre affaire yooyu ñu xaw a donc. Euh, dépendance bu nga xamante ne Sénégal am nañu ko ci pain nga xamante bu grève amee rek c'est le Sénégal kii kii est en arrêt ci demee day parce que pain amu ci bi euh, euh, dépendance boobu yow est-ce jàppale fi nekk nii parce que sénégalais amuñu amuñu alternative bu ñu mën teg ci yenn produit lu ci mel ne pain lu ci mel ceeb moom bu seeree gars yi jug di di manifester wuñu xoolal xoolal sénégalais yi <laughs> xaw ma reewande la xaw ma dañu bari façon hmm. mais li wóor moo di que ne affaire au dépendance su pain boobu c'est une habitude alimentaire. Mm-hmm. ndaxte boo demee Mali da ngay xëy suba fonde moo nii lañ lay jox fonde. Mm-hmm. nga dem ci yeneen dëkk yi. dégg nga ñu daal di ñëw dox la benn pat. ak benn euh, sauce gombo nga mm-hmm. koy ndékkee fii kese kese man mos naa dem Mali dégg nga dëkk ci benn famille malienne ñu xëy suba quatre heures du matin ñu ngi defar fonde bi man ba man tëddee sax laa yeewu ne fonde bi laa bëgg mais gis nga ñoom dañu yi dem wuti ji jour boobu man rek lañ jëndal mburu ak kafe foofu <laughs> kii ma doon kii daal di ne ma ndaw si ne ma kii ma seeti woon daal di ne ma gis nga bi may jógee Sénégal c'était en 1949 laa ñëw si si fii dégg nga nga suma doom yëpp du ñu wax sax wolof ak yeeg yu mel noonu muy wax ak man daal di jël mburu ak kafe ñuy waxtaan ak yeeg yooyu ma ne ko moom pourtant fondé bi mu ne moom parce que man xam naa ne fondé doo ko leen ko lekk Sénégal. Hmm. Euh, am na ay produits locaux yoo xamee ne fonde ay yoo xamee ne mun nañ ko jël di ko def substitution léegi sax da ngay taxaw daal di gis ñu daal di jël ndambe bi dégg nga euh, nga jël ndambe bi ak yàpp lekk ko. Hmm. nga daal di jël fonde ak meew lekk ko hmm. mburu bi bu ñëwul ah bu sénégalais yi toogoon daal dootuñu consommer mburu ak yéeg yooyu di nga gis que ni eh, boo jéggaani lu la ca fekk rek yaa ko teg sa bopp. mais mais mburu bi mais man question mburu bi mais question euh, dépendancier de produit lu ci mel ne ceeb ak lu mel ne lu ci mel ne mburu mburu parce que on parle seulement blé blé blé alors que le africain ñuy jógee seen dëkk yi alors que ñun daan nañ gis li nga xamante mooy mburu dugub gisuma ko léegi beñe mi ngi fi beñe dugub beñe yéen a yéen te lépp. mooy li ma la wax c'est les habitudes alimentaires et de consommation qu'il faut changer. Mm-hmm. jéem nañ mais chaque fois état mi ñu wax chaque fois jéem nañ ko changé. Mhm. waaye boo ko changé. bañ gaañi commencé di yeewu di xaar euh, euh, mbuum mi ñu reere woon biig pour ndekkee ko. Mhm. dégg nga nga daal di leen gis ak seen v ñu daal di jënd fukki mburu dégg nga daal di yeeg yu mel noonu. Mhm. dégg mujj gi ñu daal di fàtte loolu. gis nga loo gis rek c'est une volonté politique. volonté politique boobu meññee yi bu fekkee ne dem nañu ba kii ñoom c'est le le problème moo di que ni euh, li ñuy jëndee farine bi dafa cher par rapport ak euh, li nga xamee ne moom la ñuy mun a récolter bu ñu defaree mburu mi transformer ko mburu ba pare. Mm-hmm. dégg nga te defe naa ne ay cent francs xaw ma vingt francs xaw ma cinquante francs lañ ci war a yokk cent quatre vingt ou cent quatre vingt mm-hmm. laaj pour kii noonu. mais est ce que ñoom fi mu nekk nii sénégalais bu ñoom bu bu ñëwee yokk état bàyyi dañuy ñu jënd mburu ñu jënd mburu koo xam ne bëgg a jënd mburu alternative fii fondé mi ngi fii yéen yéen mi ngi fii ñu doon ñu doon def mburu taparapa ak ñi xam ñooy def mburu mburu dugub tuntaan njëkk ya yooyu dellu si waat Sénégal moo soigé c'est boo nekkee ci réew il faut que nga réglementer euh, li nga xamee ne mooy les facteurs de consommation ndax loo toog dégg nga nga jékki-jékki dégg nga commerçant bi daal di nëbb affaire am nga ñëw mu jaay la benn paquetu suukar 1000 francs dégg nga nga ñëw kii jaay la mburu mi 300 francs kee de la ko jaayee 150 francs ak yeeg yooyu il faut que mu am règle. Hmm. règlement boobu dégg nga ak contrôle prix kon loo kon lu ñuy lu ñuy defee contrôle de prix. kon contrôle de prix yi kay c'est pas la peine. Hmm. contrôleur de prix yi kon c'est pas la peine ñu kii parce que da gis. Eh, mooy li ñu doon wax rek ci ay seen France dégage yooyu da ngay gis tout de suite da ngay gis ku teg eh, xaal yi période xaal lañ nekk je prends cet exemple da ngay ñëw gis benn xaal ñu ne la benn xaal bu kii 5000 francs te xaal bi fii lañ ko kiyee xaal bu tuuti ñu ne la non bii nii ba mille francs hmm. da nga xaalu 500 sax dootoo ko gisati léegi. loo wax ñu ne la mille francs jëm kaw coût bi dafa yéeg mais coût boobu di yéeg. il faudrait que ñu daal di am nag règle du jeu parce que fi mu nekk c'est l'anarchie anarchie moo di que ni amul kenn waxul kenn kenn kiiwul kenn kenn téewul kenn ñu ngi ku ci nekk yaa ngi def la neex yëfumaa tey la. donc état bi moom dafa fay fi nekk nii ci mission bi mu waxoon. mission euh, bi bi nga xamee ne dafay. réguler promouvoir aussi euh, euh, consommer local aussi. voilà promouvoir loolu kooku am na ministère bu. koy régler deful liggéeyam mm-hmm. kon nag c'est un constat li nga xamee ne moom la taxaw nag ci denrée yi nga xamee ne de première nécessité yi nga xamee ne prix yi dañ leen jël ñu daal di leen fixé bu dégg nga buñ ko deful musiba am sa dernier mot si euh, ban conseil ngay joxe tey ak sa dernier mot ñu tëj benn yoon conseil bi may joxe rek moo di gënee fi ñu toll nii euh, yàlla won nañu boppam plusieurs fois à travers pandémie yi mm-hmm. li nga xamee ne moom la ñu euh, euh, toog dégg nga di ko dund euh, dem nañu ba am yeneen événement comme élection yi dab ñu fi dem na ba nga xamee ne waxu troisième mandat yeeg yooyu dab nañu yooyu yëpp day tax askan bi freiné ci pauvreté bi mm. day tax askan bi bu añee du reer léegi nag li nga xamee ne moo ci nekk moo di que état bi dafa war a jël sa mission de euh, protection des populations dégg nga euh, diggante bi ñu naan kii dafa ragal kii xoqatal kii xoolal par exemple léegi ministre boobu la daal di taxaw bi ñoom euh, euh Barthélemy wootee mm-hmm. moom woote na xam nga loolu bu ñu jàmmaarloo dafay indi problème loolu moo tax euh, les forces de défense et de sécurité daal di ñoo taxaw. Hmm. xam nga bu fekkee ne da ngay gis ay di ci sotti pétrole. Euh, luy couver di taxaw nga ci sotti pétrole loolu dafa nekk loo xamee ne ñu képp ku ci jóg di woote violence ku ci jóg di nga xamee ne da ngay war a euh, indi ay fitna na nga xalaat askan bi. boo xalaatee askan bi sa digganteeg yàlla parce que am na ñoo xamee ne am ñu ngi wut lu ñu lekk am na ñoo xamee ne dañuy xaar pour am lu ñu lekk pour que daal di mun a euh, daal di suturlu dégg nga bu ñu jëlee une journée jaxase ko rek c'est tout un pan de l'économie dégg nga qui s'effondre. voilà donc euh, gis ngeen li nga xamante ni moom père wax na ko ci euh, euh, conseil aux sénégalais man nag li nga xamante ni moom laa jeexalee juste moom mooy sensibiliser les sénégalais ngir ñu prendre conscience ci li nga xamante ni kii nañ ko donc di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñu saan jamono ji di jaajëfal équipe technique bi ñu nekkoon ci ginnaaw Malick Momo ak ki nga xamante ni moom mooy Modou Ndiaye di jaajëfal aussi le président donc du du mouvement des entreprises du Sénégal ci événement bu bi nga xamante ni amoon na ko démb muy forum international des entreprise francophone bi nga xamante ne démb le Sénégal a eu le privilège di euh, accueillir ki nga xamante ne moo nekkoon premier euh, ministre bu jigéen ca France am euh, donc kii ñëw seet si ñi nga xamante ne ñoom ñooy boobu forum amal aussi opportunité ñëw Sénégal mu nekk lu rëy loo xamante nii daanaka monsieur Diop Mbagnick amoon na ko démb donc di jaajëfal ñëpp ak lépp loo xamante ne am na ko fa démb. ci sax doguma la. ndaxte gis nga euh, événement international boobu nga xamee ne. Euh, président Mbagnick Diop mm. waaw président Mbagnick Diop mu ngi koy initier. gis nga euh, yi ñu doon def wuyaa wuyaa yooyu ñu doon def seen yëfu kasaw kasaw yooyu ñu doon def mm. dégg nga seet naka la ñu mën a dimbalee secteur privé bi secteur privé bi naka lañ mën a résorber difficulté kii xale yi liggéey ak koom-koom gi daal di mën a jog loolu mooy fulla mooy fayda mm. yii ñuy def nii di jël politique bi di ko teg ci li nga xamee ne moom moo ñuy indil suqali koom-koom bi kooku dañu koy wax rek ni président encore une fois euh, carton vert mm. pour rek li nga xamee ne continuer ci loolu ñun yooyu la ñuy wut peuple bi loolu lay wut voilà donc kon l'arbitre kon ah. à tranché jox na tey carton vert ki nga xamante ni moom mooy monsieur Mbagnick Diop doon leen jaajëfal leen jox di daje la semaine prochaine ci euh, beneen numéro bu seen émission Actu Rewmi jërë ngeen jëf